se passe au Niger est scandaleux mm-hmm. maanaam mm-hmm. CEDEAO li mu bëgg def dafa nekk loo xam ne euh, dafay contre intérêt ak contre intérêt peuple africain parce que tey dégg naa benn journaliste CNews mais li mu taxaw wax ci scandale nee na foog guerre am parce que bu guerre amut suñu ressource suñu euh, euh, énergétique dafay dafay dax <coughs> saay donc ñoom lenn lañ gis mooy ressources naturelles yi ressources naturelles yi foog ñu guerre Sénégal ban intérêt la amu fa benn intérêt stratégique amu fa benn intérêt économique intérêt peuple africain yi mooy ñu maslaa mooy bañ parce que tey CEDEAO li waroon njëriñam mooy mu def armée mu xeex jihadistes yi lu tax defuñu ko bu fekkee dañu bëgg paix ak ak euh, naat naataange Afrique loolu la ñu waroon njëkkee créer armée bu forte boo xam ne dañu mën a porter protéger Burkina Faso protéger Mali protéger ne contre djihadistes yi loolu bu amoon ba pare ñu doog a naan dañuy toppatoo ay démocratie ak pays euh, bu Matara coup d'état la def euh, Alpha Condé coup d'état la def des coups d'état constitutionnel Macky Sall moom la doon préparé fii <laughs> donc ñooñu seen yoon newu ci ba pare ñu naan ay coup d'état militaire la ñu toppatoo non nañu bàyyi li ñu nekkee bàyyi protéger intérêt français yi intérêt étranger yi teg la teg ko ci kaw intérêt peuple africain yi